namoon ah, dañuy tambali ak <laughs> euh, Franklin mm, euh, li nga xamanteni moy euh, son qui kii di je pense que ñëpp xam nañ kan moy Mia Guissé mooy ki nga xamanteni mom mo moo ci les Mabo mhm. nekkoon euh, moo doon def duo ak ki di NFU ñom ñaar ñoo ñoo ñoo créé woon le groupement boobu mais instant bi dafa mel ni euh, seen tàkkaliko euh, je parle pas de takaliko en tant que couple mais tàkkaliko en tant que ñaari artiste yu doon def duo c'est c'est c'est acté parce que kenn ku ci nek gis nañ nga de ton côté. Mm-hmm. dernièrement gis nañu NFU génne Nagasaki ben son bu bees mom kessé en solo démb Mia mo génne son bu bees tuddee ko Ida et je pense qu'on va écouter le son avant de revenir. Dar ce nu sei De ce se ai de două Coco să ne dei Limite Dar ce nu sei De ce se ai de două Coco son boobu moo tudd Idda moy son bu bees bi nga xamanteni mi ya génne nako ak clip vidéo bo xamni euh gis nañu qualité au vidéo bi c'est c'est super joli. les mm. images sont sont sont très jolies vraiment euh, muy son bu bes bi nga xamanteni mom euh, moom nako et ça parle de plusieurs thèmes yu bari yo xamanteni développer nako na ko ci biir euh, son boobu noonu. Mm-hmm. wax na ci li nga xamanteni moy divorce ak niñu koy dundee fi fi ci Sénégal. Mm-hmm. euh coono yi nga xamanteni jigen peut-être mi ngi koy daj ci sëyam mu melni ku nek en prison parce que du meuna a ndax ay doom ak lu nekk la ñuy la mhm. xalaat biir Sénégal et quand il a parvenu à se défaire de de de de jéng yooyu nga xamante ne tënkoon nañ ko ko. c'est comme tu es en train de euh, parler comme si c'était une prison quoi. mais c'est tu ne donnes tu vas pas donner envie. non je vous dis li mu wax ci son bi c'est c'est ce du dont il a parlé ak ni mu ko ni mu ko illustré ci biir dañ ko takkoon ay ay ay chaînes. et il mhm. est parvenu à se défaire de ces chaînes li mu dund ci biir sëyam moom moo ko xam peut-être parce que bu ñu comprendre bu baax ci loolu lay wax ci divorce bi nga xamante ni am na récemment ci digganteem ak euh, kii di NFU et gis nañ NFU de son côté mom tamit poste boobu nek ci kaw mom la def quelques heures avant sortie au clip bi ni nax na ma yàlla na la yàlla xare àjjana les les internautes ont demandé kan moo dee kan moo dee mais euh, mom daf ko def comme genre suspense waxul exactement kan kan mo décédé autre euh, comme sénégalais ak internet sama genre gi top kaa ak seen i bop lañu tek nenañ teg nee i dewe deewul dewee mat maanaam. mbir mi daal mbir mi daal bu mu doon ay bu mu doon ay tontonté parce que mom lay mujjé ni rôle NFU je crois son son mooy son son précédent. Nagasaki dont euh, waxul ak Mia je pense qu'il parlait à ses détracteurs.

nga xamanteni ñom ñoy ñooy sëy si seen kër en tout cas euh son bi même si ça parle de sa vie ñu bari gis nañ ci seen bop hmm. surtout les femmes divorcées ñi nga xamanteni peut-être don nañu dund loolu te ñeme wuñ ko won wax ñu bari gën gis nañu seen bop ci euh, ci son Mia bu bees bi euh, imam est-ce que mën nañ ko tënk ci wolof euh, définition ou idda wa idda buñ ko bëggee tënk leeral ko ci wolof mooy diir bi nga xam ni diir bi nga xam ni jigéenu julit charia daf ko wax ne na ko toog euh, moo xam euh, jëkkëram dafa faatu boobaa diiru idda bi day nekk euh, ñeenti weer ak fukki fan mhm. wala fekk dafa tas digganteem ak jëkkëram buum bi tas na buum bi dog na boobu temps idda bi diir bi day doon ñetti ñetti weer loolu moo tax ñu naan idda idda kon mooy diir bi ngay toog di xaar waaye xaar lan ñaar yooyu ma la wax merci beaucoup euh, Imam. bonne journée. bonne journée. à